sëñ bi Moussa Cissokho ñu ngi lay nuyu. waaw maa yow yaay secrétaire général adjoint bu b bi nga xamante ne hmm. kii di Sidya Ndiaye moom moo ko jiite ak yow kon hmm. mën nañoo waxee li nga xamante ne moo xew ci réew mi ndaxte front social bi lépp a jaxasoo bi ci gën a hmm. fës mooy grève yi nga xamante ne ñu yëngatu ci wàllu dem ak dikk bi moom la ñu nekkee boobu ak léegi def na ay fan daanaka lépp taxaw ci réew mi rawatina ci diwaanub Ndakaaru bokk na liñu ñu ŋàññ jafe-jafe ñu jànkonteel ci tali bi nu jëm seen diggante ak alkaat tamit eh, li nga xamante ne moom mooy eh, yenn garage yi tegul ci yoon ak yenn transport yi nga xamante ne teguñu ko ci yoon yeneen ponk ndax jàpp nga ni loolee ñu tënk ci seeni point mot na fukk sax tegu na ci yoon comme nu nga ko waxee léegi ñun euh, organisation syndicale FGTS ñu ngi euh, ñu ngi euh, d'abord jéggulu askan bi mhm. ba pare di masawu askan bi comme ñu ko waxee si wolof mhm. ba pare nag di apporter suñu soutien au cadre unitaire des transporteurs maanaam ñi nekk tey euh, di di parce que euh, ñoom euh, ay liggéeykat lañu dañoo am wàll si réew mi te yaakaar naa ne nit boo bokkee ci réew am ci wàll su problème amee nit yi dañu war a xool fan la problème bi jógee tey ñoom ay kat lañu ay transporteur lañu dañu déposé seen préavis de grève depuis euh, des mois yaakaaroon ne préavis boo ko déposé pour ñun ñi xam luy philosophie préavis de grève boo déposé préavis mooy maanaam da ngay ne man kat man euh, organisation sangam lii moo ma naqari dama bëgg ma préavis bi bu ko koy jot mooy gouvernement bi mooy toog saytu préavis bi woo la table de négociation mais loolu bu amul mooy indi li ñu am tey te tey ñun dañu ne ñun dañuy lancer un appel au gouvernement du Sénégal parce que nag mbir mi du si gouvernement bi rek mais xoolal tey coono yu population yi di di am si seen Ndakaaru surtout Dakar tey pour ni nit yi liggéeyatuñu en ah, problème am na ñëpp a ngi seen kër mais loolu de dañu teew te lu baaxul si réew nag dañ ko war a dénoncer ay liggéeykat lañu dañuy fekk si droit parce que le c'est un droit consacré constitution moo ko mayee ay nit bu ñu ne amee naqar te di leen di teg ay ay jafe-jafe dañu am droit pour yëglu boo yëgloo nag mais dafa am koo xam ne moom mooy sa interlocuteur mooy gouvernement mhm. mais woo la table de négociation ngeen toog ngeen waxtaan man wóor na ma ne suñu woon gan yi ñu toog ak les ministères comme ni ñu ko waxee yaakaar naa ne grève bi du def du du du du def quarante huit heures mhm. mais l'absence euh, euh, comme ni ma ko waxee euh, comme ñoom dañu braqué wu gouvernement bi loolu moo indi tey coono yi nga xam ne population yi ñu ngi koy daj te loolu c'est pas normal je pense que dans un pays organisé yu mel nii war nañ ko mën a war nañ ko mën a éviter grève transporteur baaxul ci réew parce que day day euh, saxal euh, économie mhm. gis ngeen tey waxuma la sax nit euh, yi bari ñu liggéey mais dans les hôpitaux boo demee tey am na ñoo xam ne ñu ngi feebar wala a faju ji ñu dem parce que amuñu ay moyens ñëpp tey dans les a transporter ak ciment ak ah ñun ñi war a dem liggéey y' a tellement de problèmes y' a des ay préjudices yu dul mhm. mais est ce que loolu tey ñun waroon ñu egg foofu au Sénégal mais c' ça la question que les gens doivent se poser. Mhm. tey Sénégal dañu waroon dépasser yu mel nii. Mhm. toog naan ay grève transporteur ba nga xam ne tey bloqué nañu seize euh, euh, réew mi pendant quarante huit heures nit yi mënuñu xëy dem liggéey mais loolu catastrophe la. Mhm. te yaakaar naa ne ñun ñi ñëpp dañ ci war a jóg wax donc ñun en tout cas en ce qui nous concerne FGTS nee nañu. gouvernement bi na ressaisir na woo ñi ñu toog ñu waxtaan ñu trouver des solutions. Ah, gouvernement bi démb wax na jëwriñ ji ñu dénk wàll wi ah, nee na ñaawlu na tamit taxawaayu syndicaliste yi ndax dañoo bañ dajeek moom ñiy sàkku yeneen jëwriñ ñi nga xamante ne laale nañu yëpp ci point yi ñu daal di ñëw ndax loolu tamit yoon la ñu laaj teewaayub ñëpp. waaye ma ne sëñ bi di nga nañu waxante dëgg xam nga boo buggee jàmm li hmm. nga ko bugg si bu ñu la wooyee si jàmm lépp lu ñu la posé rek lu ñu la li nga jàmm loo ko jëndee rek dara ko xam nga tey bu fekkee ne ñoom seen bopp nee nañu problème bi c'est un c'est pas uniquement le problème du transport c'est un problème transversal maanaam dafa seq ay ministères yu bare mais lan moo empêché gouvernement bi woo yeneen ministères yi ñoo toog mais loolu kay mais nañu waxante dëgg su fay na jàmm la ñu ñeneen ministères yi ñoo mais syndicalistes yi la tey c'est leur droit le plus légitime man je pense que nit dañu war waxante dëgg nag ñoom su fekkee ne rek bëgg ko tey lii coow bi waruloon am def que préoccupation yi du benn c'est pas uniquement le le ministre Mansour Faye mais il y a le ministère de l'économie il y a le ministère du commerce il y a d'autres ministères qui sont impliqués. intérieur forces armées. waa intérieur forces mais qu'est-ce qui empêche que ces ministères-là viennent s'asseoir autour de la table mais lan moo koy empêcher. Là, mais nous mais c'est nous sommes au Sénégal nous sommes pas ailleurs ces ministères-là pouvaient venir ñu toog ñoom dañ leen teg fii pour bi waaw su fekkee nag lépp loo xam ne dafa war a nasaxal askan bi ñoom waruñ ci ànd mhm. mais ñoom kay dañu su fekkee ne noonu la syndicaliste yi mais wóor na ma ne bu dem na grève bi nañu dayoo gi mu am sëñ bi Cissokho ndax lu toll ci fukk ak ñeenti organisation syndicale ñoo bootu ci cadre unitaire des syndicats des transporteurs du Sénégal ñoom ñëpp manko nekk ci xeex bi mu nekk benn euh, booloo comme ni wolof di wax booloo mooy doole loolu lu muy firnde dundee ci euh, monde syndical bi nga nekk. waaw moo boo ko seetloo sax même le monde dans dans le landerneau politique. ah comme ni koy waxee looloo xew. léegi ñëpp xam nañ ne yow boo demee yow kenn rek Eh, jël sa dëbës dem kër yow kenn di nga ci wét parce que doo dara mais nit yi xam nañ ne léegi booloo mooy mooy am do mooy mooy doole boo ko sotloo même même maintenant les syndicats cadre bi ñoom dañu boole seen seen bopp ah euh, unifier leurs forces ah, pour aboutir euh, à des résultats parce que benn organisation syndicale dans le secteur de la du transport mënul mënul mënul paralyser réew mi nañu waxante dëgg mais ñi ne bon léegi nañu créer benn cadre bu nga xam ne syndicats yi yëpp ak ñun ñuy jéem bi te tey yaakaar naa ne ils ont atteint leur objectif. Mhm. am na nag euh, ku ci bokkul muy Dakar Dem Dikk nga xamante ne société publique la gis nañu euh, ci syndicaliste wala bokk ci grévistes yi am na ñu leen di songu di yàq sax li nga xamante ne mooy euh, jumtukaay yi naka nga ko jàngatee en tant que responsable central syndical. moi je pense que même les organisations les les responsables syndicaux du secteur de la santé ñi nga xam ne ay responsables ñu yaakaar naa ne ñooñu sax ànduñu ci loolu parce que ñooñu xam ne luy syndicat gis nga syndicat yow autant nga am droit pour dem grève autant warloo privé keneen ki mu dem liggéey parce que tamit loi dafa clair non mais dañuy waxante dëgg parce que dëgg nag bu jotee dañ ko wax yow li la loi permettre gis nga mu doo jël force tu ne pas avoir le l'argent du beurre et la crémière autant tu as des droits et des obligations autant les mooy maanaam nit ki tamit booy dem grève ce droit moo hmm. suivre procédure yi nga dem grève am nga droit dem grève kooku kenn mënu la tere mais nag yow loo tere tamit nit ki ne man bugguma grève damay dem liggéey nga naan ko nag doo liggéey loolu il faut qu'on soit hmm. man loolu man euh, su fekkee ne loolu ñun ànduñu ci loolu personnellement ça c'est mon euh, c'est c'est mon engagement personnel man ànduma ci loolu hmm. voilà voilà ci njëlbeen ñaari fan lañu ñu waxoon waaye ñu jekki saay yëf yi xam na li mu réussir ñu naan léegi amatul app ndax jéggi ñu tamit euh, liñ leen may waaw parce que aussi nañu waxante dëgg gis nga gis nga man lii yëpp lan moo ko lan moo ko indi mooy ba ñàkk waxtaan rek mais gis nga man tey du ma du ma wax sax ak euh, syndicaliste yi man xam nga kan lay interpellé j'interpelle l'état du Sénégal il faut que l'état se ressaisisse nañu woo nit ñi ñu toog ñu waxtaan pour trouver des solutions parce que tey en ah, problème yi bare na les les les les les populations ñu ngi vivre les préjudices yi nga xam ne ah kenn mënu la mun mënu ko nattable am na ñu bare tey ñi ngi bëggoon xëy dem seen liggéeykaay ñoo dem am na ñu bare tey amoon nañu rendez-vous dans des hôpitaux mënuñu dem hôpital am na tey ñu bare tey amoon nañu ay important yoo xam ne waroon nañ fa dem mais tey mais loolu yëpp c'est ça parce que justement amuñu euh, jumtukaay yoo xam ne mën nañu ko utiliser pour dem hmm. donc ñun état bi ne moo na leen woo autour de la table dañ toog ñu waxtaan mais euh, ministère yi na yëpp ñëw lan nga loolu loolu wàññi du wàññi dara gis nga gis nga sëñ bi jàmm loo ko jëndee rek jar na ko loo ko jëndee jar na ko su fekkoon ne dañu ne woon ministère yëpp nañu ñëw dañu ñëw rek ñu toog ñu waxtaan mhm. mais c'est pour gis nga noonu du honoré kenn mais Sénégal les honoré parce que ñaaw na tey ñu toog di dégg ne ñu nga ñun suñu réew dañ ko bàkkee benn bakk boo xam ne dañu ne ñun dañu nekk un pays stable sous région bi ñëpp ñëpp ñi ñi ñooy jël modèle sénégalais bi tey bu ñu yàq loolu ñun fii Sénégal ak lu mu métti métti métti les gens s'asseyent autour de la table ñu discuter syndicat créé ñu ko pour indi ay confrontation bourgi indi syndicat c'est pour des conquêtes sociales ah pour nit yi toog di waxtaan lépp loo xam ne parce que syndicats yi aussi dañu am euh, participer au développement de notre pays ñoom tamit dañu am dañu am benn rôle bu ñuy jouer prépondérant hmm. yaa ngi dégg ay va en guerre mais ne ne leen gouvernement bi déglu hmm. ñi toog ni waxtaan autour de la table ñu trouver des solutions parce que tey population yi ñoom ñooy vivre tey conséquences yi est-ce que jarako lu mooy dem bi ak dikk bi gis nañu tamit uh, njàng mi ak njàngale mi ñoom tamit tàmbale nañu yëglu CUSEMS ñoom def nañ ko ba noppi nee ñu sax dañu ko tollantiyaat SAEMS nee na kon juróom-ñetti fan jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru daa daañu subu tamit ci grève muy wane ni tam yeneen secteur yëpp dinañu dugg ci xeex bi loolu ndax yéen tamit syndicalistes yi di jaxase réew mi <laughs> wala bokk lépp dañ fas yéene ko taxawal <laughs> non non non non xam nga euh, euh, man man définition bu ma am syndicalisme man dama jàpp ne syndicat defuñu ko pour muy jaxase réew syndicat dafa participer dafa war a sax bokk ñun vision bu ñu am euh, le syndicalisme quand il est bien fait mérite dafa war bokk si loo xam ne day suqali réew day avancer le réew mhm. yaa ngi parce que syndicat tamit mais syndicalistes yi si réew bi la ñu bokk bu réew bi takkee ñun ñëpp ay bo bo ñun ñëpp ay takkandoo du dëgg mhm. ñaanuñu ko yàlla donc tey xam nga lii yëpp ko waral xam nga fii Sénégal dafa amoon benn pacte national de stabilité sociale mhm. émergence économique ah mooy première conférence sociale bu ñu defoon fii au Sénégal parce que su fekkee ne am ngeen fàttali dañ ko teniroon fii les quatorze et quinze avril deux mille quatorze mhm. mu nekkoon waxtaan bu bu yaatu bu ñu toxoon ñu ne léegi Sénégal ah dañuy dem vraiment pour cette nuit trouver des solutions ba maanaam pour améliorer le, euh, les conditions sociales d'un dialogue social fécond mooy maanaam ñu toog cinq ans yoo xam ne fii Sénégal grève du fi am dara du fi am hmm. ba ay recommandations ñu jëleeoon ko foofu jëlee ko waxtaan ah pour trouver des des solutions avec toutes les organisations syndicales je pense que même à l'époque organisation syndicale yëpp signé woon nañu pacte boobu mais xam nga bu ñu demee ba signé pacte bu mel noonu ba euh, ñu jox ko ay mission ak ay objectifs mu war a contribuer à l'installation et à la consolidation d'un climat loolu yëpp après ñu nekkoon nag pacte pacte boobu mun a mu waroon apporter des réponses aux grandes préoccupations du monde du travail bu ñu demee ba loolu yëpp am tey euh, ñu jël pacte boobu teg ko de côté lii xam nga si si on s'était inspiré maanaam pacte bi lu mu waxoon yëpp su fekkoon ne ñun tonku woon na ci ah tonku woon nañ ñu ci parce que dama lay rappeler ne pacte boobu à l'époque jëloon na quinze mesures ah mënuñu mënuñu mënuñu énumérer mesures yooyu yëpp ah hmm. mais su fekkoon ne dañ sukkandikoon si mesures yooyu yaakaar naa ne ci nga problème yi ñuy wax ni yëpp tey ah dinañ ko mënoon éviter au Sénégal mais nag malheureusement nous sommes dans un pays de paradoxe excusez-moi de parler comme ça à chaque fois bu ñu décider dara ba ñëpp d'accord parce que Sénégal ñun am nañu ay projection yu baax hmm. am nañu xalaat yu baax hmm. mais gis nga euh, la mise en œuvre mooy def problème mooy jëfe bi mooy de bi quoi il faut ñuy toog aussi di réfléchir entre entre sénégalais fii ak ah, noonu mënu fi am fii jàmm rek moo fi mun am Sénégal c'est un pays de paix gis nga loolu ñun dañu ko xamee woon depuis ay maam maam yi hmm. nañu consolider loolu hmm. dañuy ne gis nga euh, sëñ nañu ci jël jot ne ñuy am jot di toog waxtaan hmm. gis waxtaan mooy indi jàmm gis fii Sénégal moi je pense que gis nga même euh, le doigt qu'on pointe sur les les syndicalistes là li nga syndicaliste ma xam fii Sénégal du ñu ay vatanguère xam nga lan mooy seen problème um ñàkk rek ku ñu waxtaanal mais bu ñu toogee waxtaan rek dañ trouver ay solution et moi j'invite très honnêtement en tant ñun en tout cas FGTS ñu ngi invité le gouvernement du Sénégal ñu woo les les les partenaires sociaux les les les de de quelque bord bu bu mu di féetee dañ leen woo ñu toog di waxtaan man wóor na ma ne bu ñu waxtaanee rek ay solution dinañ ko trouver yaa ngi dégg mm-hmm. parce que gis nga euh, syndicaliste yi euh, ñoom du ñu ay vatanguer bu ñoom Sénégal tey ñoom wóor nañ ne ñoom Sénégal bu tàkkee ñoom duñu duñu mucc mm-hmm. du dëgg ah, mm-hmm. donc ñun ñëpp dañoo am intérêt pour sauvegarder loo xam ne ñun ñoo ko bokk le patrimoine commun mooy réew mi ñu ñoo ko bokk ah ay histoire ay grève ay yooyu yëpp mënoon nañ ko éviter ci réew mi. Mmh. c'est parce que lépp nañ ko teg ci ak waxtaan. Mmh. buñ ko defee rek jàmm am ci réew mi. li ci mujj jàngat bi mooy ak secteur yi nga xamante ne daanaka yëpp a ngi yëngu ndax mënuñoo njor tamit euh, li ñu dëgmal muy élection locale yi nga xamante ne daanaka yegsi na. est-ce que warul euh, tax ba syndicaliste yi bëgg ci profité. ah en tout loolu de ñun de bokkuñu ci ñooñu. ñun FGTS ku ñu xam. ñu xam nañu nous sommes à équidistance euh, la chose affaire politique moom. dañ ko boolewul suñu mbir bon ñun nag ku bëgg def politique moom si suñu biir mun nga dem def sa politique tu mais nekk ci biir FGTS di fa def ay activité politique wala di fa wax waxu politique ñun dañ ko dul nangu sax mhm. te yaakaar naa ne organisation syndicale yu bare si loolu ñu tënku yaa ngi te ñun amuñu intérêt parce que tamit ko loolu ku koy def sax dafay mel ni yow da nga bëggul réew mi parce que loolu ban sens la am ku nekk da ngay jouer sa partition gis nga euh, waxu politique moom na ko politiciens yi moom wéeteek moom mais doo jël nag ay euh, problème euh, syndicaux pour def interférence euh, politique mm-hmm. loolu moom dañ koy dénoncer mm-hmm. su fekkee dafa ñoo xam ne dañu am ay dañu am si seen bopp ne bu ñu defee lu mel nii dinañu jaxasee Euh, politique bi wala di dugg ci ay affaire politique yow ñu arrêté ko loolu amul benn njëriñ. jërëjëf kon yow yaay euh, di fàttali secretaire général adjoint bu FGTSB nga xamante ne kon euh, centrale syndicale la bi Sidya Ndiaye jiite Moussa Sissokho Rewmi FM mu ngi lay gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di fay di merci beaucoup.